mbokk internet ñu ngi leen di nuyu di leen dalal laaj ci biir limametti point com di leen remercier comme à chaque fois ci topp bi li nga xam ne moom mooy actualité dégg ngeen problème bi nga xam ne am na fan yi yëpp ñëpp di ko waxtaane di problème ki nga xam ne moom mooy Yaa ne ñoom ñooy waa 2 mooy émission bi nga xam ne moom mooy célébrité et religion célébrité et xam ne ki nga xam ne moom mooy Yaa Awa da ko doon def fa li nga xam ne moom mooy 2STV bi mu fa jógee nag dem TFM dafa continuer woon di def li nga xam ne moom mooy émission bi 2STV bi ñu gisee émission bi di daw fële nga xam ne moom mooy TFM dañoo daal di dénoncé ni Yaa Awa dafa daal di plagier li nga xam ne moom mooy seen émission loolu indi benn coow ki nga xam ne nag moom mooy Yaa Awa Dieye génn na def démenti maanaam génnee ay preuve ni ki nga xam ne moom moom moom bi nekk Amadou Kouyaté nekkoon fa caméraman moom moo ko ko légué moom maanaam moo ko jox émission bi léegi mu nekk émission boppam loolu nag benn papier la boo xam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 Thank you.